mbokki waaw mbokki mbokki àdduna ñu ngi leen di jaar yi ñëpp di leen baal ak leen baal ak ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant Seexul Xadim waaw juste que dafa amoon benn ci bu ñu leen wax ne xamal leen ne dañoo am benn seen YouTube boo xam ne mu ngi fii Touba Gaabu Ndaw bi seen YouTube euh, mu ngi tudd 18 Safar TV. waaw jërëjëf. 18 Safar nag li ko tax a jóg mooy euh, mm, yenn seen ñoo ko kere yoo xam ne ñu ngi Touba yoo xam ne dañ cee bëgg a liggéeyal Serigne Touba waaw bi si si dalal tey ku ñu si Serigne Ablaye Sène mii kii ngeen gis nii waaw man Serigne Ablaye Sène mu nekk benn benn waay bu baax ndeysaan yoo xam ne digg yàlla lépp lu muy def moom tamit xam na ko. lépp loo xam ne yan na si télé yan na si YouTube mu nekk si tamit benn expérience mu am ci benn expérience boo xam ne dafa yaatu boo xam ne wër na ko quoi ñu ne woon tey dañ koy dalal pour di ko laaj. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu di di nuyu monde entier di nuyu Sénégal ñu nekk Sénégal ñu nekk bitim réew ñu ngi leen di nuyu képp kuy suivre internet képp kuy suivre képp kuy suivre ñu ngi lay nuyu waaw di leen tamit ne leen comme fréquence yeeg yooyu mooy xam nga lim di jouer ay scénario di euh, lépp lépp lépp luy suqali ak di may expérience su suñ suñ suñ ndawi réew di may expérience suñ suñ ndawi gox waaw ci loolu la ñuy dox bëgg tamit yéen ñëpp bu ñu ko seetaan rek nga abonné képp ko seetaan ci biir nga mën dengan abonné bu ko defee ngeen di gën a rek ñun ñi am expérience ñun ñi am tamit doole di ko di ko mën di di gën a am appliqué waaw di leen di ziar yéen ñëpp tamit di leen bëggee waaw di leen xamal ne tamit affaire bi du du jaage ne dañoo dañoo tëb tëb rek def ko mais da di bëgg-bëgg da di tamit loo xamante ni nañ ba nañ jàngal suñu askan nañ leen tamit ci ñu bëggoon tamit ñun ñu encouragé ñu encourageante ñu jàppalante ñu doolante te incha allah rabbi am naa yaakaar ne suñu borom dina ci def ndam te xam naa nag équipe bi bëri na yaatu na waaw man maay li a ndaw moom mi mooy jëwriñ ju waaye man maay jëwriñ a li